wala ma asdaadat ba ñu demee ba mu dolliku nag isaayatu naa si lori nit ña loxo ca sëriñ tuuba fii mbakke ca mbakke lor yoo xam ne abraaran ma nga bàyyikoo ko yu baax ya ngir seeni xéer ci sëriñ tuuba xéer dina tax nit ka lor ab sëriñam mu ne mujj nag lor ya mujj dolli lool bàyyi ko ca way baax ya ngir seen a xër wa fujaaran ak lor ya tamit mujj dolli nag bàyyi ca saay-saay sa nga xam ne fu lu baax nekk rek ñu jiim koo yàq jaxasoog gaa yu baax ya di yàq ba yooyee mujjee dolli ko ba bari lool sëriñ Tuubaa nag haajara gàddaay na Mbàkke wa bana sarxiya mbakke xasran mu daldi sanc fa penku mbakke ab dëkk samaahu daara salaami mu tuddi dëkk booba nag daaru salaam sëriñ tuuba bana daara salaami fi awahili ama dasasin maga nga sanc salaam ca njaal bee nag Amada muy atum mille trois cent quatre ginnaaw gàddaay ga fi safarin ca weeru diggu gàmm muy weeru safar boo ko xoolee ci at tubaab ma ngay tolloog mille huit cent quatre-vingt-six ginnaaw ba ma ko sancee ca at mooma muy mille huit cent mille huit cent quatre-vingt-six ca la sanc Daaru Salaam ginnaaw loolu mu def ab diir waaye nag suma antaqala ilayha topp nag mu toxuwaat foofa ca Daaru Salaam liyax buda aninaasi ngir gën a sori nit ña lil xilali ngir rëng-rëng ya am foofe ca Daaru Salaam al mutta xaddimaati rëng-rëng yooyu xam ne yàgg nay am ci waaju baax juy topp yalla ak mbooloo meneen mbooloo di ko gàllankoor ca moo tax falam yasdaad dollikuwul falam yasdaad dollikuwul huwa moom wa ashaabu ak ca biir dongoom ya bi ca tuxu googa mu tuxu sori mbakke dem daaru salaam téewul dollikuwul ca koom ila isaayatan lu dut rek ay lor minal fariqayni lor yooyu bàyyikoo na ca ñaari kuréel ya muy woy baax ya ak woy bon ya woy baax ya seeni xiira tax ñuy lor sëriñ bi woy bon ya seeni keñaan ak jikkoy cedd ja ne ca ñoom tax ñuy gàllankoor sëriñ bi ba mu toxoo Daaru Salaam fa makusa mu sax fa Daaru Salaam naxwa sannatin lu tolloog am at rek la sëriñ bi sax Daaru Salaam sax ga fa sax nag wasiratu mustaqimatun aw doxalinam mook taalibe yi muy mook murit yi doxalin wu jub la wu dëppoog ngërëmal yàlla tarxaa ma ngay rek moom sëriñ Tuuba wala saabu ak dongo ya ngir sàkku ngërëmal yàlla dongo ya nag yas daa doona ña ngay dolliku rek di gën a bari taalibe yi sëriñ Tuuba yi murit yi di gën a dolliku si di gën a bari rek wa allah sayrim te ci seenu doxalin yatahaada doona ña ngay dimbalante ñoom murit yi mbooloo yay fàq di ñëw moo tax ñu naan kajoor di wal bawal di tuuru saalum ak siin ak njàmbur ak mbaakol ñëpp fàq wut ci sëriñ tuuba ca daru salaam ci jamono yooyu wal wu foodu mbooloo yee tataraada fu ña ngay yokk di gën a bari wal arsaaxu wërsëg yi kal amtaari daa mel ni taw di wàcc si ci kër sëriñ Touba di wàcc si ci murit di wàcc si ci dongoy sëriñ Touba yi su ma topp nag sëriñ Touba jiitu dal di dem amma ma xasri ca fa penku dëkk ba fa kanamu dëkk ba sarxiya simaali te penkuwu te féete càmmoñ daru salaam xaw ko penkuwu tuuti féete ko càmmoñ mu dem foofa moom sëriñ Tuuba bi wi xamsatin aw sittati am yaalin dëkk booba mu dem di Tuuba digganteem ak daru salaam nag mi ngi tollu ci juróom ba juróom benni am yàlla am yàlla nag ëpp na tuuti kilomètre kon boo ko nattee calculer ko day tolloog juróom-ñaari kilomètres yu teg diggante Touba ak Darou Salaam noonu la toll foofee nag sëñ Touba dem fa fa fa banaa Touba mu daal di fay sanc Touba sancab Touba nag maa ngi ko fa sanc moom sëriñ Touba awaaxira asasin ca mujj ak ama assasine mu tolloog mille trois cent cinq ba ko xoolee ci ati tubaab ma ngi ko sanc moom Touba mille huit cent quatre vingt sept aw awaahi la wasasin mba mu tollook njaal bee nag asas wasas njaal bee nag wasasin nag ma nga tolloog mille trois cent six ginnaaw gàddaay ga di tollook mille huit cent quatre-vingt-huit ca njaal bi nag atam mille huit cent quatre-vingt-huit kon Touba njeexteel mille huit cent quatre-vingt-sept tolloog njaal bi nag mille huit cent quatre-vingt-huit la ko Sëriñ Touba sanc bam ko sancee nag suma intaqala ilayha mu daal di fay toxu foofee ca Touba bi iyaalihi ànd ak njabootam gi jóge daaru salaam dem sanc tuuba man lamin Lamine Diop Dagana mii di la nettali jaar jaari sëriñ tuuba ci téere bi ngay jàng di irwaaxu nadim yaa ngi tollook paas cinquante cinq axbarani sayxuna sama sëriñ ba xabaar na ma wax na ma te kooku di ma wax nag wa xalifatu taani moo nekkoon ñaareelu xalifa bu sëriñ tooba ñu di ko wax Muhammadun al Fadil al Fadil muy cheikh Mamadul Fadil wax na ma ne ma anna aqaahu Muhammadun al Mustapha naka mbokka ma ñuy wooye Muhammad al Mustapha al xalifatal awala te mu doon xalifa bu jëkk ci xalifaay sëriñ Tuubaa muy Moustapha al Karim sëñ nena ma Cheikh Moustapha al Karim nena ko wulida fi daaru salaami moom ma nga ganee addina ca daaru salaam nee na gane gamu addina gane gamu gane addina moom Cheikh Moustapha al Karim ca daaru salaam ma nga amee laylata jumhatin ci guddik juma alhaadiyata asarata ci ñaar ci fukki fan ak benn ci fukki fan ak benn min muharamin ci weeru tamxarit ama wasasin ca atum mille trois cent six ca la gën a àddina foofee ca Daaru Salaam moom Cheikh Moustapha al Karim kon boo ko xoolee ganeek àddinaam ca ati tubaab day nekk mille huit cent quatre-vingt-six nee na moom fala gane àddina xabla intiqaali sayxi lu jiiti sëriñ Tuuba di toxo fa Tuuba foofee fa Daaru la Cheikh Moustapha al Karim gane àddina li anna intiqaala naka toxu ga mu toxu Tuuba nag xiila fi jumaada thani wax nañ ne ma nga amee ca weeru rakk gàmm ca la toxu tuuba wa fii laylati kasfi rajabin tayit ca guddeeg kasu rajab saabihati wa isriina ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru kasu rajab min hu moom cheikh mamadul fadil nag wulida ca gane àdduna moom sayxunaa sunu sëriñ ba al muhammadul fadil dañ gën koo xam ci muhammadul fadil ca bis booba tamit la gane àddina ñoom ñëpp ña nga gane àddina ca daaru salaam fa kaana baynahuma ñoom ñaari xalifaay sëriñ Tuubaa yooyu kenn ki Cheikh Moustapha al Karim la kenn ki sëñ Fallu ñoo bokk benn bay waaye bokkuñu ndey baynahuma wilaadatan diggante seen yaari gane àddina ñoom ñaar ñooñu kom diggante bañu gane àddina ak seen ak magante maanaam sittatu ashurin la juróom benn weer dong lañu magante wa sabhata asra yowman ak fukki fan ak juróom ñaar